waaw bisimilah rahmaani rahim ñu toppatoo dars bi continuer ko wa ama maanaawu fil istilaax ñu ngi yemoon page seize wa ama maanaawu fil istilaax yi fa huwa mu ne naka maanaam ci sur le plan grammatical fa huwa ma zakarawul muallif bi qawlihi li nga xamante ne wax na ko wala tudd na ko muallif bi auteur bi bi qawlihi ci waxam bi taxyiiru awaaxiril kalimi ilax ba mu jeex ba ba ba mu jeex soo xoolee ci yaxu téere bi di nga ko gis mu ne wal maqsuudu li ñu namm ci nag ci loolu mal maqsuudu li ñu namm min taxyir awaaxiril kalimi ci soppeeko mujjatam baat bi mu ne mooy lan mu ne taxyiru axwaali awaaxiril kalimi mooy soppeekoob sens soppeekoob xaal yi nga xamante ne baat bi dina ko am ndax xaal yi baat bi mën a am day bëri mën na nekk ci xaalatu xaalatu raf i wala xaalatu nas bi wala xaalatu jarri mooy état bi baat bi di nekk état bi baat bi di nekk la la bëgg a wax waaye enon baat bi kon du baat bi la ñuy soppi waaye état bi baat bi di nekk mooy soppeeku te état boobu su soppeekoo dafa am mandarga buy wane ne baat bi changé na état mandarga boobu moo xam damma lay doon wala fatxa wala kasara ñu dem mu ne wala yuqal an yuraada taxyiru nafsil awaaxir mu ne déet ngay njott déet muy njott wala muy muy xelu an yuraada kene dañoo nammees taxyiru soppi nafsi awa nafsil awaaxiri mooy jëmmi baat bi bu mujj bi déedéet fa inna aaxiral kalimati nafsahu laa yataxayaru mu ne ndax li am te wóor mooy mujjantalu baat bi ci boppam moom laa yataxayyaru moom du soppeeku waaye xaalam mooy soppeeku mooy maska bi kon bi maanaa taxyiru shakli la bëgg a wax mooy soppeekoob shakal shakl bi mooy soppeekoob vocalisation bi loolu la la bëgg a expliquer et non baat bi mujj bi soppeeku yaa ngi dégg exemple xam nga suñu ne hal ataaka la xadiisu la haashiya ah waxuñu ne soppeeku bi xam nga su nee haashiya kooku dafa am règle bi ñu appliqué règle dare la jàngoon ngeen ko ah ndax taa marbuta su jeexalee baat dañoo war a xasaf dañ ko war a xasaf mooy dañ koy éliminer ba pare ñu ne la liiral dernière lettre bi avec son accent kon hal attaqual xadiisul haashiya ah ngay am waaye kon waxuñu ne soppeeku i'raab mooy soppeeku boobu noonu déedéet inrab bu soppeeku bi mooy lan mooy hal ataaka al xadiisu al haashiyatu ah masque boobu nekk foofu te nekkul ta nekkul ti mais mu nekk xaashiyatu xaal boobu baat bi nekk ba nekk tu te nekkul taa te nekkul ti ñu ne loolu lañ jublu ci soppeekook mujjat baat yaa ngi dégg waaw waaye su ñu nee haashiya rek xam nga dagg nañ taa mujjat baat bi am na lu ñu ci dagg wala am na lu ñu ci mën a soppi wala ñu changé ko ñu ne waxuñu loolu leer na kon axwaali awaaxiril kalimat kalimati ibaaratun an taxwuliha min min al rafi ila nasbi awil jarri mu ne kon axwaali awaaxiril kalima bi maanaa xaal yi nga xamante ne mu jëntalu baat bi dina ko am ibaaratun expression la an taxawuliha ci soppeeku bi nga xamante ne moom baat bi mën na koo soppeeku mina raf yi mu jógee ci xaalatu raf yi mooy mooy damma ilaa nas bi mu dem ci xaalatu nas bi mooy fatxa awit jarri mu dem ci xaalatul jarri mooy loo xamante ne dañ koo kasra waxoon naa leen ne xaalatu raf maska lonk xaalatu nas bi waxoon naa leen ne mooy mooy mooy mooy maska yat ci kaw xaalatul jarri waxoon naa leen ne mooy maska yat ci suuf noonu lañ koy waxee ci wolof mu ne changement boobu nag baat bi di changer état ci ñetti xaal yii ñi la wax léegi moo xam mu doon xaqiqatan loo xamante ne lu wér la aw xukman wala loo xam xukmu moo dugg ba tax soppeeku bi am comme lan wa yakunu xaasa taxawul xaasa taxawul bi sababi taxyirul awaamili mu ne dina nekk boobule changement boobule soppeeku ci sababu ay mbir yoo xamante ne ñoom ñooy dugg di di di waral soppeeku al awaal awaamil mooy mbir yoom dañuy dugg jëf ba jëf-jëf joo xamante ne day sabab soppeeku am yan mbir la mu ne ci naka min amilin yaqtadi ar rafa ala al failiyati aw naxwiha min amilin ci loo xamante ne dina dugg jëf joom dina waral rafa alal failiyati ci ci baat bi nekk bi mu nekk sujet aw naxwaha wala lu mel ni moom sujet al fail mooy sujet ha wala lu mel ni moom ilaa axara yaqtadi ba ci bu bu mujj boo xam ba ba ba baat bi mujj bi nga xamante ne par exemple yaqtadi dina waral nas ba ñu nasab baat bi ñu fat ko fatxa ko alal mafuliyati ci nekk bi mu nekk complément aw naxwaha wala lu mel ni lu mel ni moom waxaluma jaraa yaa ngi dégg kon ba faw waxaluma jaraa arab su ko waxee rek mooy firi ba faw mu ne masalan léegi nag li may doon wax sànq ba léegi mu ne mu ngi lay jox exemple pour mu gën a leer ci sa bopp masalan comme par exemple isa qulta bu ndem wax nga comme soo waxoon tey xadara muhammadun mu ne xadara muhammadun ñëpp xam na ne baat bi un la jeexee ñaari damma mooy dammata dammataani mu ne fa muhammadun marfuun mu ne baatu muhammad dañ ko marfu li annahu maamulun li aamilin yaqtadi ar rafa alal failiyati mu ne dañ ko jaar dañ ko rafa ngir ma maamulun li annahu maamulun ngir kon baal ma appel la ñu ngi jégalu kon mu ne li annahu maamulun li amilin yaqtadi arrafa alal failiyati mu ne marfuun muhammad xadara muhammadun ñu ne baatu muhammadun mujjantalu baat bi mooy daal bi le fait que ñu def ko masque un mooy dammataani boobu loolu la ñu wooyee dañ koo rafaa mu ne lan moo tax lan mooy rafaa bi mooy lan mu ne li annahu maamulun mu ne ndaxte def dañ koo jëfee li amalin yaxtadin ci dafa jëf bokk dafa jëf jëf joo xamante ne li amalin dañ koo jëfee baat bi dañ koo jëfee ngir ne dafa am lu dugg loo xamante ne yaxtadi ar rafa waral na ñu rafaa ko yaa ngi dégg al failiyati ci nekkab failam mooy sujet wam ah al fail mooy sujet ah su ñu nee fi'l moom mooy verbe yaa ngi dégg mu ne wa haza wa haza al aamilu huwa xadara te mu ne boobu boobulee jëf aji jëf bi huwa xadara mooy xadara mooy jëf ji kon mooy verbe bi fa in qulta bu fekkente ne da nga wax ra'aytu muhammadan gis naa muhammadan taxyiiru xaal aaxiril aaxiru muhammadin muhammad mu ne mujjant soppee ko mujjantalu baat bi baatu muhammad ilaa nas bi ci xaalatu nas bi mooy la fekk ñu def ko son fatxa ak a li taxayyi mu ne li taxayyiru di taxayyiru al aamili ngir ne soppee ko aji jëf ji bi ambilin ci jëf joo xamante ne aaxiri yaqtadi aaxara yaqtadi boo xamante ne beneen waral na nas ba ñu nasab ko wa huwa raayta comme baatu raayta mu ne baat boobu noonu mooy ki ñëw jëf-jëf ji ki ñëw soppi mbir mi fa isa qulta xasiitu bi muhammadin comme nga ne cëroo naa muhammad man daal cërale naa sama bopp muhammad cëroo naa ko daal choisir naa ko mu ne taxayir xaalu axirihi ilal jarri mu ne soppeeku na xaalu baat boobu xaalu fin wu baat bi mooy daal bi ci xaalatul jarri lan moo tax mu ne li taxayyiru li taxayyuri ngir soppeeku al amili aji mbir mi jëf bi amilin ci jëf joo xamante ne def na ko axira ci mujjantelu baat bi yaqtadi nga xamante ne waral na al jarra maska yi yat suuf mooy jarra wa huwa al baa u mooy baa bi nekk ci kanamu muhammad moo mooy bi muhammad yi ndax xam ngeen ne baa boobu ci lii tax jar di am la yaa ngi dégg wa iza taamalta fi hazihi al amsilati zahara laka anna aaxira alkalimaati wa huwa daalun min muhammad lam yataxayar wa anna allazi taxayara huwa axwaalu aaxiruha fa innaka taraahu marfuan fi lmisaali awala wa mansuuban fi lmisaali saani majruran fi lmisaali saalis mu ne wa isa taamalta bu fekkente ne seetlu nga tuuti nga observé nee na ci exemple yi nga xamante ne wane nañ ko léegi nii zahara laka dina la dina biir ci yow di nga gis ne naka mujjantalu baat yi wa huwa daal te da baat yëpp di di tegtale ci Muhammad lam ya taxayyar mu ne dañuy gis ne ne day tegtale ne Muhammad baatu Muhammad moom du soppeeku waaye que ne da ngay gis ne ndakate wa anna lazi yataxayyara waaye da ngay gis ne ndakate liy soppeeku ci Muhammad bi du baatu Muhammad bi waaye huwa axwaalu axiruha mooy jeexalu jeexalu baatu muhammad bi ci boppam mooy jeexalu baat bi mooy daal bi daal bi mu ne fa innaka taraahu naka yow gis nga ne baat bi marfu an parfois ñu rafaa ko mooy mu jeexee dun comme sànq ah fil misaalil awal ci exemple bu njëkk bi na jox sànq mooy xadara muhammadun mu ne wa mansuuban gis nga ko baat bi ñu maas ko fatxa ko comme si exemple sànq bi deuxième bi mooy raaytu muhammadan ah fii misaali saani mooy si deuxième exemple wane wala majruuran gis nga ko ñu ñu kasara ko fii misaali saani si ci ñetteelu exemple bi comme xaziitu bi muhammadin mooy xadara muhammad xadara muhammad muhammadun bu njëkk bi mooy teew na muhammad ah xaziit raaytu muhammadan mooy gis naa muhammad waaye xasiiti bu muhammadin mooy cëroo naa muhammad loolu lay firi kon mu ne la wa majruran fil misaali saalis kon ak kasra bi nga xamante ne kasra nañ ko ci fin bi yaa ngi dégg mu ne wa haza taxyiru min xaalati rafii ila xaalati nasbi ila xaalati jarri huwa al iraabu inda al muallifi wa man zahaba mazhabahu wa haza alxarakaatu salaasatu allati hiya rafu wal nasb wal wal jarru hiya alaamatun wa ama wa amaaratun alal i'raab mu ne wa haza taxyiiru mu ne naka yooyu la soppeeku min xaalaat wala boog boobu la soppeeku min xaalati raf yi ci état wu bi ñu bi ñu ko raf déclinaison wu raf a ilaa xaalati nas bi ñu jëlee mu dem ci nas ba ilaa xaalati jar yi mu dem ci xaalatul jar huwal i'raabu mu ne loolu la ñuy wooyee i'raab indal muallif ca auteur bi mu ne auteur bi moom loolu la jàpp ne mooy i'raab loolu la firee ne mooy i'raab ah ci wàllu grammaire mooy soppee ko baat bi nga xamante ne day day fir day jógee ci u ñëw ci i ñëw ci a masque bii di damma bee di fatxa bee di kasra mu ne soppeeku maska yooyu moom mooy i'raab moom la wax moom borom ajurum ya wa man zahaba mazhabawu ak képp koo xamante ne nee na demee nga mazhabam mooy gisam gisam moom ki bin taalif téere bi képp ku ki gisee ni mu gisee rek da ngay jàpp ne yow i'raab suñ koy définir mooy lii nii wala ma wax léegi wa haadihi l xarakaatu salaasatu te yile ñett xaraka yi maska yi ah allati hiya raf te mooy rafu mooy kas damma boobu noonu ngay gis wala nasbu wala fatxa bi wala jar wala kasra bi yi alaamaatun mu ne yii ay ñooy màndarga yii nga xam ne ñooy màndargal xaalu mooy wa amaaratun ba tey amaara mooy màndarga c'est un synonyme alal i'raab bi ci l'irab